رحمن رحيم يا مالك الملك بحق السلسلة صل على من ليقاد النزل بلا تسلسل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمال يا ربي يا ربي يا ربي شر الجلال والإكرام سل بتسليم وباحترام على نبي Allah. المغني سل بالتسليم على المستغني بك بعلي وسابي الكرام وقل لهم بالنزم ساق خير مرام تكسري وعق العصر سل على من جدت لي بالنسر به بغير آفة ولا كدر وسلما عليه مجري القدر بآله وسبه يا مانع يا خير من أرداه عبد صانع يا من له اسم فاعل من الضرر وقد كفيتني أساه والقرر سل بتسليم بحق الهمسا يا من كفانها ولا صل مساء على نبي محمد والآل والصحابي في الآل والمآل يا مقتي النور بلا أفول سل بتسليم بعقل فيل على نبي ورسول مدى واللالي وساب وقم يا مدى بحق ما أنزلت في قريسي من سورة سل على القريسي سيدنا محمد وسلم واللالي وساب وكل سلما من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافه أنت الهادي يا منهيا من قبل ساجادي سل بتسليم على خير الورى والآل وسابي وكل نورا واللياب في كل شيء نفعا ما هداك والتهب لي رفعا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسورة المعون وجه لغير ضرر الملعون يا ربنا يا ربنا يا ربنا هب لي بحق كوثري يمنى قيادي وأجور كسري يا ربنا وجه لخير الكافرين بلا مدرة باقي الكافرون وارث يا بديق أنت الباقي لك الأراضي سبتك اتباقي سل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرسدنا وآله وسعدي واجعل القروب سانظم للخيرات من خير السروب واجعل به سانسمك الخيرات جميقها يا مقي الميرات بسورة النصر وتبت كفار أبئدة الوساد والأكفاء إلى سوى نهوي وبالإغلاس جدلي إلى الجنة بالإغلاس رسيد يا سبور سل بالسلام على الذي فاق بأحسن الكلام سيدنا سيدنا محمد والآل والزهبي في العالي والمآلي ولتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الأسى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف من ته الحروف بسارة ينمو بها المعروف الله جل أحد وهو صمد ليس له من والد ولا ولد walam yakun jalla lahu kufuwan ahad kufuwan ahad wa sarmadan bil mulki wa sarmadan bil mulki wa sarmadan bil mulki wal hamdin farad ashhadu annahu illahul wahidu wa anna ahmada rasulul habidu shahidtu anna allaha رب الخلق وأن أحمد رسول الحق وأن أحمد رسول الحق وأن أحمد رسول الحق وما أرسلناك إلا كافة للناس بصيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد صدق الله رسله رؤيا بالحق لتدخلن مسجد الحرام إن شاء الله آمنين مقالقين رؤوسهم مقاصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون سالك فرقا قريبا هو الذي أرسله أرسل رسله بالهدى والدين الحق دين كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سواي الدير والدين الحق دين كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سواي الدير ñi سنت سنو بروم borom tay jullu ci yonent bi sallallahu taala alayhi tey ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te wér ba li mu yéene liggéeyal lislaam sunu borom àggale ko di ko ñaanal sëriñ Seex Saalihu Mbàkke di ko ñaanal sunu sang bu tedd bi di sëñ euh, sëñ Muudu Mbàkke maawul xayaati kiy dundal xol yi ñu ngi ñaan sunu borom gundal guddal aw fanam te wéral ay cëram sunu xol nag fees na del del del ba lañu ñu bëgg a wax wax ko dina dina jafe lool ci ñun العارف إذا قاد عبدا حال بينه وبين الشيطان الرجيم وجمع بينه وبين الرحمن الرحيم kon ñi ngi sant sunu borom tey xam leen lii ñu am waa dëkk bi ngeen xam ko xam ne lii kat lu jomb la ci ñun ndax ñun kat ndongo yu xeeboo xeebu lañu sart yi war a mat ci diggante nit ak ab sëriñam tuuti nañ ci lool xamuñu ko mënuñu koo matale xëy na yéene rek la ñuy demee wax ji dina xaw a xajam ndax xol bi dafa sedd waaye nag ñu ngi sant mbooleem dëkkandoo yi ndax li mbokk mënal mbokkam mooy saayu gestoo rek gis la te yéen a ngi ci taxawee ca na mu ware ndax ànd ngeen ak ñun ba tàyyi dem seeti sang bi bu fi defoon nag bu fi dëkkoon sax ak ñun te jàpp nañ ni sax mi ngi fi dëkk duñu ñu doyal lu dul doy nag loo ci am dana doy ñi ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp tey gërëm sunu sang bi te koy xamal ne lim nu defal di ñun xam nañ ko xam nañ ne fóot na suñuy xol ba mu set wécc lenn daal lañu bëgg aajo yi nit ñi am te di ñu ko diis sa jëmmam ji rekk waral ko ñu mënuñooy jot jottale aajo yëpp ñuy ñaan bu fekkee ne ñun fos nañu yéene ne duñ ko war ci sunu dund bu fekkee ne dëgg la ci ñun ñu ngi koy ñaan mu may ñu képp ku jàkkaarlooteek teeg ñun ñaan ñu aajo rek sunu jëmm ji mën a faj aajo jooju loolu lañ ci amoon lu ñuy wax ñi ngi tuubal ñëpp am na nag euh, sama baay Assane Diaw ndax euh, mbooloo du mën a ñàkk tudd tur lu ma xamal ci téere sëñ Tuubaa yi moom moo ma ko xamal ak ku nuy wax sëñ maam As Ndiaye ñoom ñoo may jàngal teew nañ fi sama yaay aada ak mbooloo mi mu àndal ñëpp nga xam ne moom taxawaay bi rafet na sell na ak euh, soxna Khady Diouf mi jiite daayira Porokhane bi ñi ci des ñëpp nag teg naa seenam nuyoo ci seen loxo te kenn ku ne aajo joo fi andi yàlla na ko sunu borom def. ونحن فيك النبي المنيع من كل شر وأذى ثنيع مستمسكين بالغياث أحمدا خير الأنام مندا ومبتدا من قالها امنه الله من البلاء من قالها في زمن الوباء أمنه الله من البلاء قصائدي من محدثات المنتقال صلى عليه من خدا وانتقى قصائدي من معجزات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 te di leen ndokkeel di leen sant bu baax ci bés bi nga xam ne yàlla dogal na ñu ngeen amaat ko ñu amaat ko ci nganuk ku baax ki ci dëkk bu tedd bi di ñaxab làmbaay sëriñ bi nag bés la bu mu fonk ndax bi muy ñëw ànd na ak ñaari njabootu sëriñ am di mustafal karim moom sëriñ da ajara mom haramin baati mom saher soxna bu sow mom mam maram mbacke muy soxna mam Awa mbacke ak soxna Baali Buso Mbàkke andi na itam ak ay jëwrinam yi nga xamne ñom la jiital ci liggey bi ci diwan yu bari ci rew mi andana ak jëwrin serigne yahya Si mi nga xamne moy mooy mbollem mbooleem yi andana dekk ba mu joge jëwrinu dekk ba di serigne Umar diouf di manarul khuda andana ak jëwrinu Touba di Serigne Ousmane Dieng andana na ak jëwrinu Njaareem di Serigne Abdou Thiam andana na ak jëwrinu Bambey di Serigne Massamba Diouf andana na ak jëwrinu Yarax di Serigne Mouhamadou Lamine Gore waaye andana itam ak jëwrinu Tiaxar di Serigne Adjuma Diouf kon Serigne Ousmane loolu day tektale yitte ak dayo ji nga xamne serigne bi jox seen bés bi nga xam ne ñëwoon na fi daawi jéeg ren amul benn dëkk bu mu jóg demagum waaye mu jagleel yéen waa ñaxab làmbaay jëmam ju tedd ji jëmam ju sell ji kon ngeen sante ko yàlla bu baax te xam ne suuf si sant na waaye xol itam sant nañ bu baax a baax kon gannaaw tey sëriñ bi dafa yendu ci ay xat-xat ndax fépp fu njabootam nekk mu ànd fa ak ñoom tay mu xëyoon gunge ji benn njabootam ci wàccuwaayam bu njëkk di biir bàmmeel di ñaan ci mbaaxuk sëriñ bi yàlla sun borom tàbbal ko jannatul firdawsi waaye itam beneen njabootam bu way juróom wàcc liggéey mu doon ko taxaw tey ci njaareem ba tax mu yendoo ay programme yu xaw bari ba tax itam mu nekk ci cant digganteem ak boromam boo xam ne xëy na fu 6 heures jotee wala teg tuuti rek day daal di wat ci dekk bu tedd ba di manarul khuda kon nak ñu bayiko ko mu saafonte ak mbolo mi niyonte ak yeen fatali ñu ñu soñnat ñu ba suñu jotaay bi doon jotaay bo xamne dañ koy tàqamtikoo ba kérok suñu borom diko dogalata kon mbokk yi ne ñepp tewlu goor ak jigen mak ak ndaw bi ay xol ak ay xel te seen ay jëriñu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in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 at mu jot nga yëgnu ñëw fii ci dëkk bi fay nu la yal na la yàlla fay nu fay la yal na la yàlla yontu bi sëñ Tuubaa fay noo kawe woon yal na la yàlla teg fu ko gën a sori ci barke maam Thierno sunu xol sedd na guy dëkk bii nag ak dëkk yi ko wër yépp ku lim joom amuñu seen ak fay yàlla doo nga am seen ak fay jigéeni dëkk bi itam ñu la bëgg la nag suñu la ko waxee da da di sax dañoo mënta jot sa ci yow waaye konoon ñu wax seen ak cofeel ndax saa boo xewlee ñaari ñu taxaw man mii di seen bàyyi nag wax dëgg yàlla yéene jii nga am fii ba di fi ñëw ni laa am te fee nga nekk waaye nag mag gi ci boppam moo ca yëggatut moo tax ba téewuma léegi nag li ci def daal ay ñaan la rek yal na yàlla fa caajo teggi suñuy tii saafara suñuy jàngoro ci barke maam Thierno képp koo xam ne kii dikk na fi yal na yàlla fa sa aajo Ousmane sant na waa dëkk bi sant na man mii di waay juram sant naa la ba fa kan yàlla ak yonte bi sëñ Touba waa dëkk bi su ma yeboon ne tund làmbaay yépp a daje su ma ko doon lim tey di dinaa am dëkk yu ma tudd waaye bari na dëkk yu fi dëkk képp koo xam ne kii nag ñëw na fi yal na fi yàlla ak sëñ Touba fa sa yal na nga dindi téeméeri at ak fukk ak benn saa boo geesoo yem ci man ci barkeb Cheikh Ibra Fall bismillah la ilaha illallah la ilaha illallah sana بالمقدر وبالمقدم وبالمؤخر أول يا فلا أنتقم وإنك العفو الرؤوف يا خير من لو تجامد يا مالك الملك الذي مرامي لدي الجلال والإكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صل على حسب الإله نعمته باب الإله شراته الهدى الإله وصحبه وسلمه صل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا شفيعنا وآله وسلمه صل على باب النعيم ساق الصراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم صل على المؤدب سل حرمة المؤدب خير رسول والنبي وصحبه وسلم صل على باب النعيم ساق الصراط المستقيم محمد خير الأنام وآله وسلم noo ngi sant yàlla sunu borom bu baax moom mi nu mayaat ak tal ak fekke ndax tal ak fekke kat nekkul ci loxol kenn kudd ci loxol yalla sunu borom jambi mom bëgg-bëggam rek la am ak yeneem waye nak fekke ak tal ak man ci coobare sunu borom la nek kenn ci nun kat yittem wala jambaram mayu ak fekke ren ku dund ba fekke am at ba at ma delusi du sa yitte du sa pas-pas du sa jambar du sa man-man waaye loolu coobaree sunu borom la doomu adama nak ñaara sunu borom daf no bind no xam bis yi day romb duñ bayyi xel weer yi day romb duñ bayyi xel at yi di romb duñ bayyi xel ci biir bis yooyee lañu ca yàlla defal ci xéwal duñ ko bàyyi xel ci biir weer yi noonu ci biir at mi it noonu te lu mat di bàyyi xel la ndax lu ci romb jeex na kat dootu dikkati mukk dañuy wax dab dabaatal waaye dab dabaatal yombut ndax la ngay dab dabaatal fa nga ko def boo ko defoon fa mu nekkoon la ngay def fa nga doon dab dabaatal fa lay gën a sakkane fa lay gën a yokkoo waaye nag du tee ñuy wax dab dabaatal kon maa ngi dénk sama bopp gannaaw ba ma yàlla sunu borom ñuy góorgóorlu ci di sant yàlla ndax lépp kat yàlla ndax mooy borom baax mooy borom yërmande mooy borom tawféex mooy borom dimbal moo nu amalit te kenn ci nun jékki-jékki wut am kenn it tànnum boppam la muy doon ak ka muy doon ak fa muy ci coobare sun borom la nekk nit ki ni nga xamante ni tànnut waxtu muy judd tànnul ak juddoom tànnut ña koy jur leneen li ci des lépp ni mu ko wóoree ni loole kenn dugalu ci loxoom li ci des lépp ci ak dundam it la mel na ca ànd ak dal jorut fër-fëri jorut tell tell jorut lenn ci wax lu dul noona wala jëf lu dul noona wala melewoo lu dul noona yàlla bi mu lay indi ci kaw suuf tàgguwut kenn ci coobareem la fi indee kenn tànnalu lu la tànnaloo sa bopp yi yàlla la fi indi ci coobareem na la wóor ni diir bi ngay def ci kaw suuf it loo fi war a am noo war a mel foo fi war a jaare jurut tiit jurut jàq loo fi war a am lu ne doo génn adduna te agsiwut ci yow noo war a mel lu ne doo génn adduna te meloo noonu loo war a xam lu ne doo génn adduna te xamoo loola noo war a mel lu ne doo génn adduna te meloo noonu kon nak julit bi jam bi nay lu bu baax ci delu ci yalla sunu borom lolu kat moy lo war moy lu war nun ñep bisi yi weesoog wer yi weesoog at yi weesu nañ koy bayyi xel ndax dundu go xamanteni kat la nga ca am lepp fo xey muy gën di wàññeeku ta du yokku war ngay lu bu baax sun mag ñi kat noo xam ndaw noo xam lan mooy ak ndaw de ndax xam na ñu génn nañ ci ak ndaw te kenn duutu ca dellu mukk mel na mag mu bi jaaw mu xam ne dana bootoote wala bu bootootee rek du doon sagoom de jeexal na ci bootaay de ni nga jeexale ci bootaay jeexale ko ci nàmp góor góor loolu bu baax ci sa diggante ak sa borom di ci wax loo xam di ci jëf loo xam di ci meloo loo xam ndaw ni nañuy neex a digal mag ma jaar fu baree baree baree baree baree bari ba jekki toog yow mi ndaw bis bu li dijee na la sama doom wala sama sët lu mu ca teg bàyyi ko xel ndax daa am ci lu jaar ba jàll mooy tax mag muy lay biir gone gone na ko déglu te bàyyi xel la ko mag ma wax am na solo de ndax gone dereeti ndaw la yore lu bari du ko xam mag nag dafa jaar fu baree baree baree baree bari moo tax ñu mag mën naa ba cim réew mag mu baax mat naa ba cim réew mat man mante na ko caa boole mag bu baax mat naa ba cim réew léeg-léeg wolof na lu yàgg dëgg la waaye lu yàgg te doon dëgg dëgg la waaye lu du dëgg lu mu yàgg-yàgg du suppi ku doon dëgg de kon nag nanu bokk góor góorgóorlu bu baax suñ digganteeg sunu borom te di ko sant fii ne dafa bari xéewal yoo xam ne daf noo jege lool kenn ku ne ca noonu te fu mu kalambee làmbee daj ko te du ca sant yàlla mukk ndax bala ngaa xam xéewal googee dara da ca gar gis nga rubine bi ci sa kër fek mi nga xel do xam njariñal ndox do xam xewul ndox waye bis bu rubine teje 24 heures da nga xam lan moy ndox nit ki kat fi ne fu mu bëggee tour ndox dem ca wa tour ndox di ka tok du xam xewul tour ndox de te lu mata ba xel la nag lii may wax da no jege lool te war koy lamb di ko daj war di ca sante yalla ndax am nañu ko bëgg te mënuñu ko am am na ñooñ ko defee ci hôpital lañu dem yow mi koy def nag di dem ak dikk te dara jotu la del sant yàlla ndax cant googu dana tax loo lii kat la gaar kay dem hôpital ngir mu mën a def loole mën na laa bañ a gaar ak leneen lu ca topp lu ne xeeti xéewal yëpp dañ caa war di sant yàlla suñu borom ndax mooy tax xéewal yooyu suñu borom saxal bu xéewal yooyu nag da nga koy tàmbalee ci sa jëmm xoolal ci say cir ak li muy ni muy yëngoo ak ni muy doxee lépp nga di ko xam tibb seex mu neex rek yombut de da ngay gis séeréer bopp buñ ko tegalee fii ceeb lam koy nam cay def waaye da koo tal de xelam daa dal de dafa am jàmm de dafa am ak wér de waaye bu amutoon jàmm wérutoon tëlu ko dara du neex ci moom lañ ñoom bay neex neex neex neex neex du ko yëg te loolu dañ cee war di sant suñu borom ka nga ci tane nga di ko ci dimbali te yàlla tax kon noo ngi leen di nuyu lu bare bare bari daanaka dénkaane bi mën naa yam foofu la ca des nag nu jot li ko ndax yitte yi dafa bari noo ngi nuyu waa dëkk bi yëpp ci njiital Seydunaa Ousmane mii yitte yu bari na xat-xat yu bari na waaye nag wax genn kàddu gu nit dolli ko ci diggante moom ak boroomam jar ndox junni kilomètre ndax yiw la wudul jeex mukk heure bu ñu nee tekkil takkun gi su boobaa dana la jariñ te tekkil takkun gi nag ku ne war na ko bàyyi xel ci ñun ñiy toog muy man muy yéen ndax tey jii kat ci rob laa xëy te rob boo dem bis buñ tëralee néew bi ba mu jekk da ngay dégg ñu ne tekkil takkun gi te kenn ku nekk ci nag takkun googee dees na ko ko takk buñ ko dugalee ci biir ba noppi na tekkil ñu boole suul kenn ku nekk ci nun na ci xelam di dem te mu koy bàyyi xel bu baax sëñ Touba lim nu digal mun ñëpp mooy ak njub ab sëriñ boo koy topp jub moo tax ab sëriñ boo koy topp jikko ji rafet a tax ab sëriñ boo koy topp di wax dëgg tax ab sëriñ boo koy topp wattandiku jiw a tax ab sëriñ boo koy topp wattandiku rambaaj a tax ab sëriñ boo koy topp topp yàlla a tax sering diisu ko top ci dara diisu ko top ci aada sëriñ mag ñi nekkoon fii sëriñ Babacar Cargaan sëriñ Aliou Mané sëriñ Mor Maana Mbay sëriñ Aliou Diouf keroog bi ñuy teg seen bakkan ci sëriñ bi xam nañ li leen sëñ Touba jariñ kenn ku nekk xam nga ni la nga bëgg ci sa digganteeg sëñ borom sëñ Touba dong nga ko man képp ku bëgg a dox sa digganteeg sëñ Touba du la defal loola tey jii de fi des ba mbooleem ña nga xamante ne wane nañ gannaaw day seeni tur kenn xamatu leen kenn déggu leen fenn ñom lañuy dégg ba faaw yi tamit ba keroog aduna tukki moy tax nit joxe sa bop ngir yalla dafa am solo lool waye nak ndona yiñ fi bayyi it nañ koy bayyi xel te diko dundal ñom kat bëgg yalla ak bu yonentam ak bëgg sëñ tubaa marale leen ak seen borom mo taxon ñu tek seen bakkan ci sëñ tubaa moy tax ba bur bi tege jeuseen ak paakaam ñu xam ni dee moom kenn kenn du ci mucc dee genn dee képp la kenn dee yaar yoon dee yu bari ngërëmal yàlla nag moo gën a wóor fop su dund lu mu yàgg yàgg yàgg nga di ko dund ca pale yi gën a rafet faaw nga xëy dee deel ci yàlla kon moo tax ñu joxe seen bakkan joxe seen alal ngir jëm yàlla yàlla na leen yàlla yokk seen leer yokk leen a fay noo ngi siyaare Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal sumb bi mu sumb tuubaa ngir la liggéeyal ko Serigne Touba yàlla defal ko ci ndam ak barke ak tawféex ak sutura tan ànd ko ak moom di dollee ñaanal sunu sang ba yàlla yokk leeram Serigne Saalih di ñaanal njabootam gépp ca bopp ba Serigne Cheikh moom Serigne Saliou yàlla taxawu leen te sàmm leen te aar leen yéen waa Ñaxam Lambaye ak waa tund wépp ñoo ngi leen di nuyu góor jigéen mag ndaw noo ngi leen di siyaara it seen biteel yu bari yi ngeen may dékk yelloowu ma ko yooyowu ma ko man maay jaam bi gën a doy di ci jaam yàlla yi te gën cee torox maay jaam bi gën a suufe ci jaam yàlla yi di ndong li gën a doy di ci donga yi waaye xam ngeen seen biteel yi lu ma lu ma ci ñaanal bu ngeen ko dékkee damay wax ni lii lii ngeen may ñaan loo de yelloowu ma ko waaye maa ngi ñaan seeni yaakaar yi kenn ku ci nekk lam bëgg yaakaar ko yàlla mi borom kàttan ak ndimbal ak tawféex ak sutura ci darajey borom Tuubaa yàlla na faj seeni aajo yàlla na tegg seeni jàngoro yàlla na tegg seen i tiis te seen yaakaar yooyu yàlla ko yàlla dëggal donte yelloo wuñ ko noonu kenn ku ci ne yaa xam la nga bëgg ci sa xol yaa xam la nga mébét ci sa xol yaa xam la nga yéene ci sa yaa xam fa nga bëgg a àgg yàlla mi nga xamante ni nag moo mën a teete kenn ku ci nekk mu fekk li ci sa biiru juru jigéen ngay toq ndox mu di la sàmm ngay lumbu deret mu di la sàmm ba def ci ay cër mu di la sàmm ba nga wàcc kaw suuf mu di la wàcc ba nga am wàcc ci kaw suuf nga am ay bët ak nopp di wax ak a dox ko yëngoo ko dal yàlla moo mii kenn ku ci nekk la nga bëgg yàlla la ci fekk ak lu kawe sa njort te kenn ku nekk la muy yóotu yàlla la ko ci sunu borom jotale ci gën gaa rafetin anam Serigne Ousmane sant nañ bu baax muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw nii ko seen way nuyu nañ ñëpp siyaara nañ ñëpp di balu hak ñëpp di bal ak ñëpp tay ñaan suñu borom bo leen jéggal nit ku man di doon loy dugg nang ko xam nit ku man di doon la lay jariñ nang ko xam buñ ne kat amna waju taxaw fe di joxe ay junni ku fa dem mu jox la ab junni kenn du sét wajay kan junni ba dong ngay xol waye do jema li jënt ki joxe junni de na dem ba am sa junni rek ngay wax ngir lan sa sa yitte bop ak sa yitte aduna lu baax fu ngeen dégg nit di ko wax bu kenn mën a dox seen digganteeg kookee bu lenn mën a dox seen digganteeg kooke ndax ëllëg mooy des tey day jeex nit lu man di am ci kaw suuf day xëy ñàkk ëllëg nag mooy des ba faw te nun ñi ñëpp ëllëg lañ jëm kenn du des ci kaw suuf képp ku fi dugg da nga xëy bis génn ko waajal ëllëg nag moo gën fuuf ndax ëllëg ay des ba faw tey jii luñ mën di am dañ koy ñàkk daraja ju man di don dañ koy ñak am am bu man di doon dañ koy ñak ab tar bo fi yàggee ñak dara daraja bo fi yagge tuuti yalla ko ci def ko ci kenen kon aduna dar sax fi lepp day jeex yalla nu yalla dimbali ba lepp lu ñu yëngu muy Yalla ak yonentam ak Serigne Touba xaadimal mustafa Yalla na yalla faj seen aajo ta japp ndal fajeen wi yalla na yalla teggi musibe ak bala yi yalla na yalla lafal nu chat. Yalla bu nu dar dab ci lu Yalla yalla bu nu dar fil yàlla na suñu borom bokk defal mu rafet sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax yàlla yàlla fa seeni aajo ci darajay borom Tuubaa yàlla na yàlla tekkale hisabu aduna ak alakhirah yàlla na yàlla jéggel ba faw yàlla nu yàlla yir ba faw yàlla nu yàlla yërëm ba faw yàlla yàlla fa suñu aajo ba faw ci al mustafa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nu ngi leen a ñaan yaa maalikal mulki bi aqi salsalaan salli ala man li aqaada nusula bila tasalsulin wala jawlin wala zulmin waqad kafaytani taqawula sayyidina muhammadin walaali wasaabi fil aali wal maal يا ربي يا ربي يا ربي شر جلالي والإكرام سل بتسليم وباحترام على نبي سلمسا يا أحمد واللالي وسابي وساسا يا مدى بالقاديات وبحق العارية صل على سيسق سبق سيدنا محمد يا مقصد واللالي والسهب الذين اقصدوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستغني بك بعلي وصحبه الكرام وقل لهم بالنسم ساق خير مرام وبتكثر وقت العصر سل على من جتلي لي بالنسر به بغير آفة ولا كدر وسلما عليه مجري القدر بآله وسبه يا مانع يا خير من أرداه عبد صانع يا من له اسم فاعل من الضرر وقد كفيتني أساه والقرر سل بتسليم بحق الهمسا يا من كفانها ولا صل مساء على نبي محمد والآل والسادي في الآل